jëfati mbokk yi ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders TV ñu ngi leen di nuyu tey ñuy am mbégte faggoo ci suñu jotaay ak euh, people 221 fas yéen ànd suñu jotaay koo xam ne vraiment euh, xam nañ ko ci réew mi mais aussi xam nañ ko ci mais suñu nit quand di suñu xarit di koo xam ne vraiment dafa bokk ci ñun ñuy am mbégte lool ci di am ak moom jotaay donte ni gëj nañu am ak moom jotaay ci rédaction Senbuzz tey nag ñu feggoog people 221 pour am ak moom jotaay sama xarit sama doomu ndey Ablaye Mbaye Ba Faye Pawlish mbay moom la seen buzz ak people 221 di am ak jotaay mon sama xarit la père des jumeaux maa ngi am mbégte bu baax a baax ci beneen yoon ma fas yéene am ak yow jotaay. waaw maa ngi nuyu sama xarit sama doomu nday ki tax nit ñi bëgg ma ki tax nit ñi ràññee ma. Mm-hmm. maa ngi koy delloo njukkal di ko nuyu muy guy gi. Mm-hmm. sama xarit la di nuyu yow it sama xarit nga. di nuyu tamit congaan sama xarit la sama doomu ndey nga samay samay xarit nga yi naa ñëpp waaw yi naa ñëpp samay gaayen nga defar nga ma ba mettee kii ma jël si dafa am ñaar danga maa defar ba mettee kii ma jël si guy gi kon yal na yàlla def jàmm tey nii ngeen ànd tey pour booloo pour ñu waxtaan dama leen koy nangul tey waxtaan may waxtaan ak yéen tey mooy waxtaan bi gën a neex ci àddina waxtaan bi gën a am fulla caat na waxtaan bi gën a neex waxtaanu mbégte tey laay waxtaan ak génn mm. parce ba ma amee njaboot ba tey macha allah génnu ma demoo fenn damay toog pour relaxer pour xool samay doom di leen teete di leen di di di di waxtaan ak ñoom parce que li ma am moo raar mm-hmm. mooy ji di mm-hmm. <laughs> sant yàlla mm-hmm. gërëm sama soxna di gërëm Fatou Laay di gërëm Aïda Mbaye di leen gërëm di gërëm Bas Laay Laay Matar Laay Rasaan sama goro sama lépp. Mm. di nuyu El Hadj Papa El Hadj na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla suturaal di nuyu sama soxna di ko delloo di ko gën a nuyu di ko gën a njokkeel di ko gën a gërëm di ko gën a def mu am jàmm. Mm. di gërëm sama yaay ay bàyyi moom it na ko fi yàlla bàyyi di gërëm ki ma yar ba tax ma am ba am fulla ba am ba am doom muy Bintu Dieng yal ko fi yàlla bàyyi yal ko yàlla sàmm di nuyu sut nag sama yaay Ayda mm. defal jàmm di nuyu sëñ Bass ma lay nuyu képp ku bëgg a rek maa lay nuyu tey émission bi ngeen am tey mooy gën nag ci jamono ji nag 2024 jàmm rek wax ak kontaan rek def tey mm. bàyyi naa mer ci àddina mm-hmm. mm-hmm. macha ci loolu sax laay commencé le père des jumeaux moom laa lay tuddee Pawlish yàlla may la ay bant ñuy ay ñuy mel. nga may wooyee bu ma kenn wooyatee Pawlish. Hmm. papa ji nga may wooyee. papa ji non ji moo dafa gudd. papa ji waaw waaw waxal loolu. d'accord le père des J. ok très ban bi yëg-yëg nga am yàlla may la ay tout tànk mais li ma ci ëppal solo macha allah da nga woote ngént ay bis bi la ñu ñu bëree bëri ci say xarit ci say am di jàmm ñëw seede yu rafet yu bëree bëri aussi vraiment jub si ban yëg-yëg nga am ci loolu Pawlish. parce que nit ki na mu toll rek noonu lay jëfee. ni ma toll moo tax nit ni wuyu si ma sama mbaaxaay ak sama yërmande si maa ngi soo ko xam ne tey nag maay a Sénégal man maay réew mi xale laa. Mm. bu ndaw quatre 2004 yàlla suturaal ko tey muy ngénte àdduna bi si te ngénte ma dama doon tudd. tudd ngénte bokkul bu ñu tax si après lay def ngénte gi rëy rëy mais nii nii dama doon tudd rek wane sama bopp di xool sama capacité dafa laa toll ci doomu aadama mais gëm naa ni maay Sénégal gëm naa ni nit ñi dañ maa bëgg. Mm. ñu baax ñëw na ku gore ñëw na ñu seesee ñëwul képp ku fa bon amul képp ngénte lu bon amu fa billaahi wallaahi. Mm-hmm. képp ku fa ñëw ku baax nga ak ma suul sama borom borom borom baax laa képp ku fa ñëwul yàlla la wowut yàlla bëggul nga ñëw yàlla xamul nga ñëw parce que Zimo du caaxaan Zimo nekkul n'importe qui yooyu ñëw sa tudd mm. nekkul n'importe qui yooyu ñëw sa ngénte parce que nag fii ma ko amee la ak ki ma ko tuddee bi ak yonent bi ak su Seydina Muhammad ak biisu jagana mm, yonent bi moo ëmb lépp mooy moo moo gën ñëpp mooy gën ki mu moo ñu leeral moo ñu sàkk moo tax ñu lépp leeral dañuy seedi lay jaay moo tax dégg Seydina Muhammad képp fa ñëw rek jàpp ne yow doo nit ko baax yow xoolaatal sa bopp xoolaata sa bopp ñi wow ma kenn sunu borom mooy xool ay nit ñi ko neex ñi bëgg yonent bi mu xëcc leen ñëw bëgg yonent bi du dem màkka bëgg yonent bi du siyaare màkka ku yonent bi génn asaka nit jooy bëgg màkka bëgg yonent bi du tax joxe lekk joxe xaat te bëgg yonent bi ci xol la sunu borom moo la fay indi la foofu moo tax képp ku fa ñëw tey sama xol sedd na ci yow ñaanal naa la yàlla dafa jàmm yan yonent bi teew ci jarajaay Seydunaa Muhammad alors forcément la bañ a loolu dafa mel ni dafay wane sa yëg-yëg ak sa cofeel ak sa mbëggeel ci ci ki nga xam ne mooy Bijou ban taxawaay la Bijou am ci sa dund tey ba nga tuddee ko li gën a fort ci yow muy sa doom. ni may xoolee sama waajur bu jigéen noonu laa koy xoolee damaa woon xarit. Hmm. woon ma mbaax woon ma gore woon ma yiw ma dal moo tuddee ko ko. Hmm. nit la mu la woon doom dafa sax ci xol. Hmm. koo ko tuddee yëg nga ko koo ko tuddee bëgg nga ko koo tuddee fonk nga ko moo sama yaay ku mm. mm. te nag mérito mm. que tool na foofu sama diggante ko doom mm-hmm. mm-hmm. tamit mënumaa wax te du ma tudd su sonnee moom laay gis su ma jaaxlee moom laay gis sama bët bu taay moom laay gis. moom bijou. xaaral rekk su ma sonnee ba sonn moom laay gis. Mm-hmm. bijou sama yaay la yaa aw balde. Mm-hmm. ku baax ku mën a sonn ci nit ku gore ku xam àddina mm-hmm. ku dal ku yiw ku xam àddina Awa Balde dama ko ñaan dama koy bàyyi yàlla. seen présence ak taxawaay bi ñu taxawee ci sa xew bi wane na ne vraiment seen diggante yéen sori xam nga diggante diggante dëggantaanjaay mooy nit am bés. Mhm. muy dëj li gën a rëy ci nit dëj ngénte xam ne yàlla dafa bind sàkk dee ak dund. Mhm. ku dee nga ñëw ku dund nga ñëw nit bu ñëwee sax nit bu ñëwee ci yow rek jàpp ne koo koy sa nit sa nit du alal du kër gu rafet du xaama. du ràns du nekkul bu la gisee jooy nekkul bu la gisee batam taa nekkul maye xaay maye kër déedéet bés ñëw la nga ñëw nga teel ko bésu mbégte bisu naqar loolay àddina te loolay bisu nit loolu la ci bisam sa bis bi loolu laa ci am ah, loolu laa ci am mhm. loolu laa ci am loolu kese laa ci am loolu kese laa ci am awma loolu laa ci ban yëg-yëg la def ci yow ku mel ni Bijou ak Soxna Awa Balde ak sa xarit Adamo ñoom ñëpp vraiment ñu taxaw taxawaay bu am solo ci sa bis indil la appui financier mais aussi li ma ëppal solo man mooy sedd rafet nga xam ne Bijou tàllal naa ko micro mu wax ko. de même que aussi kii di Awa Balde. waaw mais parce que man noonu bi eh, euh, guy gi man noonu laa mel guy gi sama billaahi su ma neexee dul sama loxo ci kaamil. Mm. daa làq ñu bari ci àddina parce que guy gi saw xol bi dara nekku ci guy gi am xol bu rëy. Mm. am xol bu yaatu ma suñu borom may ma ñaari bant. góor ak jigéen macha allah. suñu borom day woon chaque fois dama ne ni Sénégalais yi du ma jinne du ma rab duma ma dëmm du wàlliw mais suñu borom des nit nekk nit yàlla te doo ko xam. du ma nitu yàlla laa nag yàlla rek ma xool di ko neex mu def. di mhm. tëgg julli di joxe mburum koor di génne asaka te sori na yàlla di tëgg toog sàngara di naan di vole di def tëpp jege na suñu borom. Mhm. jege suñu borom ci xol la di tëgg jëkkate alalam di maye fu ne nga foog ne moo baax nga foog ne moo jege yàlla jegul suñu borom. Mhm. kooku dafa sori yàlla. nit a ngi nekk ak nit te yàlla rek tax. Mhm. billaahi wallaahi bëgg suñu borom di génne lépp ak suñu borom te sori na yàlla. Mhm. nit a ngi def lu nekk ci àddina man guy gi sénégalais yi laay jàngal àddina tuuti ci àddina sama sëy commentaire bu ne nga doon dégg koo tàkk waru koo mhm. yàlla nag mooy karim yàlla xool ko neex yàlla may ñaari bant bu góor ak bu jigéen macha xam ne suñu borom ay cërale yàllaay ko neex mu def ci jaawam. man yàlla damaa dimbali sama àddina mais li ma réewoon yàlla may na ma ko. barki barke Seydunaa Muhammad jabar ju rafet macha allah ma ñàkkoon yàlla suturaal ma ma commencé am suma visa suma déposé ambassade suñu borom may ma. sama maam maa ngi ko jox mu lekk sama yaay maa ngi koy jox mu lekk sama papa bi ma gënoon a sori ci àddina juboo nañ man ak moom. kon tey loolu ma gën a nekk ci àddina loolu mbégte boobu laa gën a am ci àddina suñu borom may ma bant loolu laa gën a fonk kon yàlla teral na ma ci àddina amatuma droit mer. amatuma droit wax nit ko lu ñaaw amatuma jëf jëfeen gu ñaaw amatuma droit def def boo xam ne suñu borom bu ko yëgee xol bi dina tàng lu ma mën ñaan suñu borom te ñaanal ki ma ko may mhm. yàlla foo jublu yàlla na fa yàlla jublu yàlla yow mi ma na nga yàlla yàlla na nga am Ferrari yàlla yàlla na nga gudd fan yàlla yow foo jublu na yàlla jublu ni nga ma terale yàlla na ko yàlla terale mhm. yàlla yaay Karim yàlla yaay jabaaru yàlla yal na nga yàlla yal na nga dee ba dem àjjana. yàlla yan yaa yaa gore. yàlla nit hmm. Macky Sall bu la may xaaj da nga koy ñaanal yow. ñaanu xol sa waajur bu la may xaaj da koy ñaanal. nit bu la may xaalis da nga koy ñaanal mm. kii may ñaanal moo jara ñaanal parce que su ma ba ba tisoo li moom la su ma demee ba yeewu tëdd am kilim di dawal voiture kenn du moom loolu suñu borom yàlla nag foo jublu yàlla fi yàlla jublu yàlla li nga bëgg sax yàlla yàlla la ko yàlla may yàlla laay ñaanal parce que moo tax ma am lii tey moo tax nit ñi bëgg ma melu ma fi nen ba nit ñi war bëgg yàlla yaa gore yàlla yàlla na nga gudd fan ci darajaay Seydunaa Muhammad yàlla foo jub yàlla fi yàlla jub yàlla. alors am na solo mais Pawlish euh, l'absent le plus vraiment demandé mooy ki nga xam ne mooy Sénégal yëpp xamoon nañu sa diggante ak moom ba ngay door ba léegi muy Wally Seck bari nañu lu wisi ci groupe Faramaren mais ñu bari ñu ngi posé wu question lan moo tax Pawlish diggante mag Wally Seck na mu meloon nga dem bay tuddut gisuñu ci Wally looy tontu ci loolu. <laughs> ngeen di am na laax. am na ceeb. am na macaroni. am na tufe. am na couscous am na jaabare ñettali am na ay nit ah am na ay naa nit ñaa ngi photographie ñëw nañ sama mbokk si internet yi ñëw nañ <laughs> bu bu kenn ñëwul tey waaj uma dara day yokk nit ñi rek nit ñi ñëpp ñëw nañ. ñëpp a ñëw moom bu ñëwul xanaa moom absent la am rek waaye moom ba muy mati dëgg-dëgg foog bu saan woote ay téléphone dañ ñëw xanaa li mu ñàkk mati moo tax ñëwul loolu rek la xam naa li defante moom ba nga koy defante koo xam ne. <laughs> est-ce que na ko ñu bari ñu ngi naan est-ce que tamit daf ko koy wala Wally yëg na ko ak yooyu looy leeral ci loolu. musuma yëgal xewam te damay dem ngeen itam yëguluma ko te damaa dem lu mu am caar na dem naa fa lu mu am caar na fekke naa ko lu mu am caar na teewal naa ko yëgal laa am damay tudd du ko raam naan ko damay tudd ñëwal ngir yàlla du ma jooy naan ko damay tudd ñëwal ngir yàlla xam loo man ci moom damay tudd day ñëw rek wala mu toog ñëwut dafay bàyyi kuy ñëwul dafay bàyyi tab intéressé ma nit ñi daal ñëw nañ yàlla na ko yàlla defal jàmm ba kuy xewal mu ngénte yàlla na dem waaye moom man moom ñëw nit ñi ñëwul nañ ma te nit mooy nit ba kàllaam ak ne ak zoroy ak tànk nit ñi ñëw ak tànk la yor ak ne ak lekk te laaxa gi fa ceeba gi fa def naa ba dafa xëdd moom ñëwul moom <laughs> moom la engagé ah, moom ñoruma ma dégg ni soxna ay dara yëg na ko woon na la defal na la teraanga yu demee noonu bu loolu amee tawaali ñëwul loolu lan lay wone Pawlish soxna ay dara taxawul tawaali taxawul tamit règlement de compte la seen diggante wala aussi dafa am lu nekk ci biir loo bëgg a wax. la soxna xanaa daa matière moo ëpp dafa matière nit nit boo matière da ngay lu bari xanaa xamoo immature du ci xaalis du ci alal du ci xam du ci kër gu rafet du ci xaamu du ci gaaw a soo immature da ngay matière nga yow immature nga yow boo dem bay defanteeg ay xar defanteeg ay muus waykat yu ndaw di defanteeg ay segg non loolu la. waaye li ngay wax defante. ah si parce que defante lay nduroo si. man romb naa defanteeg sama diggante ma parce que sama xarit la sama lépp lu ma mel moo ma ko def lu ma am moom ma ko amal ba bu ndee bay defante man continue immature mi ngi koy dugg xanaa dafa immature rek waaye nag ko bàyyi yàlla na gën a mat xanaa lii bu ci jugee dina am mat man boo xam ne ku xoolee dina ñëwati moom la engagé ci ñàkk ñëw moom sérieusement mais ñi ma bëggoon te jooy mais ñëpp ma ñëwoon ñëpp ma ñëwoon macha allah. d'accord mm-hmm. mais bu ma juumul le lendemain dafa am benn xaritam bu doon xew mooy sëñ Baara Diouf imaama bu ma juumul donc nan nga mën a jàngatee mu dem ci xew sëñ Baara te ñëwul vraiment ci xewu euh, kii di Pawlish c'est vrai que xëy na bu doon occupation rek dañuy jàpp xëy na amul jot amul jot. du dem fenn non ay xarit lañ c'est normal mu dem ay xarit kees lañ ñoom ñaari fa mu dem. pour leen ay xarit yéen ñaar ko. ay ma ay ma ay xarit lañ normal mais moom ñoom ñaar ñu ko nekk ay xarit normal foo mu demal ko c'est normal foo mu dem yow it day dem Hmm. si day dem de day dem moom foo dem. est-ce que dafay wane rek ni yëg-yëg bi mu amoon ci seen Baara bi mu am ci seen Baara amatu ko ci yow Pawlish. waaw xam naa loolu la xam naa loolu kese la xam naa loolu la. c'est hmm. c'est normal xam naa yëg-yëg yi mu amoon ci moom moo dem sama dent man ak moom xam yàlla yàlla mu ñëwaat ñaanuma yàlla mu ñëwaat. Hmm. waaw man dama koy indi moom. te gëm naa ne nit ñi dañ koy indi. ñaanoo yàlla sa digganteeg Wally mel na meloon Pawlish. yaa ni yëg-yëg bi moo dem. waaw bu dee man du ñëwaat ci man parce que nag nit ku nit ku lu demee xanaa yàlla indi ko waaye man dama koy indi te gëm naa ne du koy indi nañ bàyyi ba yàlla indi ko rek waaye moom foofu il faut mu dem foofu ay xarit la ñoom. d'accord am na benn xaritam bu ñu gis vraiment ma tooñ ko sax sama xarit la monsieur Amar délégué maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom dafa indi ay leeral moom moom délégué. sàcc neexul dama lay kan mooy sàcc kaay ma xam nga yaa tudd turam man xam nga xam nga turam mais sàcc neexul waxtaanal sàcc mu neexul waxtaanal ab sàcc moom na bàyyi rek waaw man yaa tudd turam man sa sàcc laa xam sàcc neex a communiquer sàcc boo ñàkkee jom ñàkk ko jom xam nga sàcc da ngay lay dóor di la futti du def lu ne nga ñàkk ko jom sàcc moom neexul waxtaanal parce que sàcc ah, sàcc moom du neex a communiquer waxtaan ma keneen yow nag yaa tudd turam xaw ma turam mais sàcc daal du neex a waxtaanal waaw te ma dimbalee ci waxi sàcc rek ngi dem rasulillah. waaw nee waali la defal yow waroo toog sax di métit lu waali ñëw na sa xew wala xewul ndax loo doon waali la dafa am noo meloon démb ba dara doonul dara ndax waali moo la defar looy tontu ci loolu. bu dee am naa lu ma métti ci loolu yàlla ma gisante ak rasulillah yowmal xiyaam yàlla bu ma gisante ak rasulillah yowmal xiyaam li nit di defal nit def naa ko alors damay tudd vocal damay tudd li di defal nit def naa ko xam lan lan waxuma ko yëguma ko. wax naa ko na ko sama xarit la duma ko xas du wax ci moom lu ñaaw du ma def ci moom lu ñaaw parce que te xaw ma ko ci moom moo ma ni ma mel moo ma ko def lu mhm. ma moom ma ko def ginnaaw yàlla su ma déggee daal yi moo tax su ma nit ñi fonkee moo gën a tax su ma nit ñi ràññee moo tax waaye man ne naa ci at ci rooram loo xam ne tey xam na mat xam naa waale bu tëddee nit ñi di ma xas billaahi wallaahi daa war a retaan ni fi ma police apporté ñi ñëw barki démb xamuñu ko mais Ndiogo Mbaye xam na Dogo xam na Pam Moodo Mbaye xam na Buuba Joo xam na fi ma jaar ak jaar ba an anim bu rafet la amul lu ñaaw amul bon mais waali xam na man xam naa xasuma ko xasuma gisuma ci moom bon xawma ci moom lu ñaaw sama xarit la mhm. yàlla moo def lii ma am moo tax ma def ko su ma nit ñi ràññee moo tax ma def ko du ma ko xasuma ko caat na mhm. sama xarit la mhm. billaahi wallaahi lu ma ko xas sama xarit la du ma nit ñi ràññee moo tax su ma nit ñi fonkee moom moo tax su ma nit ñi gënee ku may billaahi su ma nit ñi déggee police police moom moo tax. parce que ginnaaw yàlla tey moom ma defar moom ma ñu ko yóbbu Europe waaye dama ko mérito mu yóbbu ma parce que dafa am jaar man ak moom xam nga 2009. Mm. ba 2024 du caaxaan ñi fa nekk ñëpp. Ndiogu laa fa fekk. doog Ndiogu Mbaye laa fa fekk Paa Mota dogo mag waaye lañ xamandoo. kon ñëw amul kenn ku fa ñëw tey man man maay daale bi man la ñu ko yóbbu ma tukki ci àdduna mm-hmm. ku baax la xuma àddina la mais des fois i mat yi da koy dugg d'accord waaw mais nit ku baax la. am na ñu jàpp ni problème mu mooy dafa jaloux ci ñenn ñi nga xam ne ñoo entouré Wally xëy na loolu rek mooy problème am ba indi crise euh, ci ci sa diggante ak moom ñu bari aussi loolu la ñu xalaat. su may jaloux ba yàlla may may seex nag jaloux jeex ci man li ñëpp bëgg loolu la am macha allah liñ suma jaloux yàlla mat war na ma mën a rey tay boo tàppee Pawlish di nga gis Liss a ngi nii su ma génnee sama xew rek war naa mën a lii nit ñi billaahi wallaahi barke alquraanu karim su ma soxoree nit ñi war dañ maa rey su ma iñaan nit ñi war su ma doon soxor sax dama koy bàyyi billaahi wallaahi mm-hmm. amatuma droit soxor amatuma droit def lu bon amatuma droit ngaañu parce que suñu borom damaa teral bu teral mën tawee su yàlla damaa teral yow man nan laa fi toll nan laa fi mel nan laa fi am ba mm-hmm. suñu borom may ma ay bant yu leer naññ macha allah mm-hmm. kon yàlla teral na ma amatuma droit soxor amatuma droit bon billaahi mm-hmm. wallaahi amatuma droit daraay soxor barke yu yàlla Muhammad or oh, du ma soxor man nekkuma nit ñu nit ñu nit ñu agressif foofu du hmm. ñàkk a agressif ma suñu borom terale ma lii ci àddina du ma soxor billaay wala du euh, parce que parce que xamul lu waral loolu xam ne ni ki ki ñuy fekk ci nit ku baax la ki ñuy fekk ci nit ku yiw la il faut nu ñëw parce que mën ñoo amuñu benn détail Omaro laa doon détail la mais toog naa ci àddina ne ko dootuma waxati caw lu ñaaw parce que bés bi la am ci ku ma ko ñëwul xeeb naa la te dama ko ñëwul ak ak dignité dama ko ñëwul ak personnalité billaahi wallaahi loolu ci xol la ñëw bi ñu ñëw xol lañ ñëwee ñëw bi ñëw danoo ñëwee sot ñëw bi ñëw danoo ñëwee amour ku fa ñëw amour nga fa ñëwee ñëw fa pour defante ñëw fa pour wone dafaa ñëw parce que booy defante dafa fekk ma fa defante jeex parce que man maay defante waaye nag dina fa ñëw xol ñun fa Omaro maa ngi lay gërëm yal na la yàlla fay lii rek day jàngal nit àddina di xas nit ki chaque fois ba nit ki fekk ci wuyu ci la ci bis bi gën a rëy amatuma dara wax lu ñaaw yal na yàlla defal jàmm. Mm-hmm. yal yàlla suturaal parce que nit bésam lañ koy xamee. Mm-hmm. xanaa xamoon nit ñaa ngi jaawale baax ak soxor wala buggoo kenn siiw nit da koy jaawale te nit ñi xamuñu loolu. am na nit ñoo xam ne bëgguñu kenn tàkk ci àddina. Mm. bëgguñu kenn am bëgguñu kenn xew. bu ñu kenn am kër bu ñu kenn am oto bu kenn xam-xama loolu ci nit la mbaax du ci wane la nga jooy baax du ci gij may ay gaynde ay xar ay segg ay muus ay kër te loolu du mbaax mbaax du la bu la xoolee nga kott nit jooy ñu filmé la nga jooy dee baax tu ci mbaax nit mi koy def ci suufu tànk doomu aadama muy heure bu dara amee nga jug wuy ci nit ak xel ak xol ak intelligent ak sutur ak yërmande loolooy mbaax te nit ñaa ngi jaawale baax may xaalis nit ñi wax ci yow nga génn déedéet lool du mbaax ngi sal dafam ak rakki baax ak magi baax wax jooju na ku ko jël jàpp yow baaxoo jooju ku ko jël ñu taf la ko jàpp ne war ngaa xoolaat sa bopp wax jooju ku ko jël ñu xoolee la taf la ci jàpp ne ngaa xoolaat sa bopp loolu du mbaax mbaax ci xol la mm. ñi baax ñi ñëw nañ sama bi sedd mm. nañ bi yal na yàlla def jàmm est mënuñ jàpp ni Wally comme ay xaritam yu bari ñëw nañu ngànt rek moo ko téye xëy na moo tax xëy na mais seen xam naa doon julli période boobu ba période moom nit ñi dañuy teel a julli xam naa doon julli bi xamul jot ak àjjuma ji day xat moo tax mënta ñëw mais moom nit ñi ñëw nañ lekk nañ laax naan nañ boisson naan nañ jus naan def nañ gingembre def nañ ay boisson def nañ ay ay ay lekk nañ concombre ay jaabare waaw waaw ay ko jëmale ko ci délégué Amar di ko accusé ay maraboutage benn xele boo xam ne moo benn jabaru kilifa dem nañu liggéey ko sànni ko kort ba mu yu demee noonu ndax am nga loo mën a wax ci loolu waaw loolu duma ci mën a wax parce que moom man duma ci si mën a avancé. am met xam naa lu wax xam na ko parce que dëkk bi la moom Sénégal xam na lu bëree bëri lu wax xam naa da ko xam lu wax da kaa maîtriser parce que rek moom moom mooy réew mi bu dëgg neexee yàlla moom mooy mi na ko bàyyi rek mu def ay ay détails am nank par xam naa dina jéem a lijjanti lépp leeru ma sama yoon sama yoon sama sama nekku ci sama sama yoon nekku ci intérêt sama ma sama ŋañ sama gàtt nekku ci un point un tiré di nuyu sama xarit maa ngi koy nuyu ñoruma intérêt la ilaha illallah <laughs> ma xol baa ngi mel ne xool yaay Messi xool baa ngi sedd guy nit ki booy tuumaal nit ku lu ñaaw far yàlla def na kat yaay def lu ñaaw lu gën a bon loolu ñu leeral ñu leeral ko ñëppay kontaan ba maak ba maak waaye sàcc neexu la waxtaanal léegi nag maa ngi nuyu nag sama xarit di nuyu sama doomu ndey di nuyu nag sama xarit maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Adamo parce que nag ngénte li da cee def li war a def te dakaa def amoon na ñu ko ci waroon toll te ñu ko moom dafa génn un million cinq cent am maa la ko ndawtalee nit ki bu defee loolu. da ko war a gërëm na ko war a sant. Adama maa ngi lay gërëm maa ba pare yëkkati deux cent mille muy muy un million sept may. ñoom Ousseyn Mbaye kon nag boo defee loolu sama xarit bi yàlla na yàlla suturaal. aada yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla tedd ci darajaay Seydunaa Muhammad ni nga ma terale yal na ko yàlla terale di di nuyu sama yaay Nafisatu sama yaay Nafisatu maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm naa lay fonk Awa Balde moo tax mu xam ko. fa mel ni métit bi nga ci am mooy day wane ni da nga sincère ca digganteeg Wally moo tax xëy na li mu li mu teewul nga am ci nga am billaahi wallaahi ma aw ma lu ma ci métti barki rek kontaan naa barki alxuraan billaahi wallaahi. billaahi wallaahi ak jabaram fi ma teg soxna fi ma teg woo na ma démb rek. fi ma teg rek moo ma neex ci àddina barke alxuraan te nit ko ne da nga koy rusee jabaram te dama ko rusee jabaram te en moom xaw ma lu ma koy waxee lu ñaaw parce que sama xarit la lu baax ku baax la sama diggante ak moom jàmm la ak salaam waay la daal. Hmm. wax ci lu ñaaw mënu lu ñaaw mais sama xarit la sama waay la fu ne naa ko fa. lu ne lu fu ne ci fu ne fekk naa ci àdduna mais xam naa xam naa dafa ñàkk jot la. moo tax mu mel ne nii waaye man moom jàppale ma ko dara barke alxuraanu karim. Hmm. su ma demee bay jàppale waaye lu ñaaw man man man maa rey. ci lu ma ko jàppal yi ñëw nga am na laax am na ceeb. am na mburaake am na mu xam sax ngéntele am na lépp am na ay nit benn nit bu ñëwul waaye ñëwul dara tamit bu ne bi waaye xam naa doon julli ak ajuma tamit mu tomb ak ajuma ji takk xat mais loolu rek ñàkk ñëw moom <laughs> def ni chaud ni froid billah wallahi def ma dara sérieusement alors fi may jeexalee Ahmed Cissé déclaré na guerre ki nga xam ne mooy sa xarit Adamo jàpp ne ni daal kilifa yi nekk ci gannaawam di ko dooleel ba muy am yenn autoritaires yi di saaga nit ñeeg yooyu kilifa yooyu nañ ko bàyyi. wala mu weer lépp loo xam ne rek am na ko ci moom comme ay preuve noo jàngatee kàddu yooyu. illallah sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يسجد والكرام قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويقول له كفوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا na yàlla def jàmm ni ma ay ñaan. Seydina Kiram. Sadio moo sa xarit ñu ñu fas yéenoo guerre ak moom mënoo jël position défendre ko. déet wax naa ci moom sama xarit la ma lu may waxaat wax naa lu baax a pare leen laa amul lu waxaat ci moom. Hmm. sama la. d'accord ku baax la nit ku sama xarit la hmm. lu ma ci waxaat. jërëjëf defal leen ay ñaan ngeen dem. bismillah wala jarul ko. du ma ñaan dem de wala guy gi dafa am looy leen looy laaj. waaw bu am ay fas dafa am leen mbay daa am leen loo bëgg kii boo bay waxal ba dimbali leen bay bay daa am leen loo war a wax non looy wax fii su ma duggee damay lëlu parce que dafa am ay ñaari bee damay ci biir du ma gënaat demee bu dee am nga looy laaj la teel ma ko laaj parce que ci yaa a jooy dañuy jooy. non est-ce que gars yi laaj nañ la la laajal bu la neexee nga laajal ma tontu wàll parce que aw ma lu may ay caire. non dañ ne waa ji lan moo waa ji. parce que ay xarit la ñoom ñaar. waaw yow nag. non <laughs> ay xarit la ñoom ñaar wute rek. Ah. man xeetu man dëgg laa xarit boo xam ne logique la xarit boo xam ne dëgër tànjaay la man dama xaritu nii nii farafa jay yaa rafet yaa attidoxa yaa am xarit déedéet man xaritu dëgër tànjaay la li ma xaritu yaa mën a way yaa def déedéet ma xaritu logique la <laughs> moo tax ñëwal ma du yomb te ñëwal gi ma ñëwal ja yéen nit ñi ñëwal mbay ñëw nga ah. sa papa ñëw na sa yaay ñëw na ngeen am na laax am na ceeb am na moo xam am na muraake am na ay gaynde am na ay yàpp keneen ku ñëw tamit bàyyi dañu gis nee nañ yow yaa gën a jege bu déedéet picc nga caa xew xel maa ngay suuf ma ji gënu ma koo jege de bu jum de ay xarit lañ ñoom ñaar de da kaa war a demal de ay gaañ lañ ñoom ñaar ay xarit lañ ñoom ñaar il faut mu dem mbay li mi lay jaam de il faut dem du dem de nit ki mu nga ko jege te te sori ko nga ko sori te jege ko mm-hmm. bu jum de mbay ay xarit lañ ñoom naan normal il faut mu demal baara Pawlish merci beaucoup ale mbay bi pare ko bu ko soxatu ko parce que mbay li mi lay jaam solo mbay allez vas